ñii di liggéeykatu croix rouge mer ba futu lañ def ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu bi ñu toogee ñeenti weer te ñu seen salaire. liggéeykat bu liggéey ñeenti weer joxuñu la salaire foofu la tële yem. comme ni mu ko waxee euh, dañu yëglu woon ngir mbirum salaire yi ñaari weer ci ginnaaw travailleurs yi son nañ ñenn ñu ngi ci ay situation yu doy waar yu ñu mënta wax ñenn ñi seen sutura xaweeku na ñenn ñi. ñu ngi ci difficulté yoo xam ñu ko wax kenn mais malgré tout la gouvernance reste insensible à cette question parce que gisuma benn yoon fu ñu wootee communication wax ak nit ñi jéema a ay solution pour régler le problème donc loolu dafay wane ni ñoom ñu ngi ci leneen. ñoom nag li ñuy xamle mooy ñi leen jiite defuñu seen liggéey ni mu foo waree ba tax na ñu ngi leen di ñaan ngir ñu delloowaat lenge yi. madame la présidente ak équipe am wane nañ seen tële te nit ki bu tëlee nag dañ koy changer ñu indi leneen. ku toog ñeenti weer mënoo fay. te wóorul la sax ndax dans sept mois di nga mooy wan nga say limite tey jii bu doon société bu normale ñoom dañoo waroon déclarer fayit dem seen yoon. gis nañ ni ku mel ni son secrétaire général Makan Mbeng qui devrait être le premier répondant des agents c'est le premier représentant de nous qui sommes là mais il préfère il a préféré se ranger avec la présidente. ba tax na fas yéene nañoo amal yeneen i jéego ngir rek xeex seen ak ak yelleef. moo tax ñun moment bi nekkatuñu dañuy def beneen jéego suñu jógee ci fi dinañuy dem seeti le ministre de la santé moom ak le président de la république bu ñu mënul ut saafara ci lii ci diir bu gàtt CSA dina jël xeex bi bu jaree coura CSA organiser grève générale des travailleurs dinañ ko décréter parce que trop c'est trop. mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni ñii di liggéeyee ca croix rouge ñu ngi koy jànkonteel ba tax na ñu ngi woo nguur gi ngir mu daal di siy wut ay saafara balaa muy ëppi loxo.